رحيم jëfa mbokk yi ginnaaw nag bi nga xamante ne bàyyi ko nañ la ca Daaru dos fekk fa euh, daayira bi nga xam ne moom moo di Maqaadu Sidixin dañoo daal di ñëw fii rek nga xamante ne ni moom mooy suura fekkaat fi tamit beneen daayira boo xamante ne nii ñu ngi koy wax Chifa euh, Sudur yi di daara joo xam ne macha allah ñoom it ñu ngi wane seen taxawaay bu rafet bi nga xam ne am nañ ko ci yoon bi waaye rawatina nag bernde bu am solo bi nga xam ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ci la ñu woo woo ngir ñu sant ko ba tax na ñu daal di fii ñëw wan leen ñoom it li nga xam ne noonu lañ koy dundalee mu mel ne bu ñu waxee bernde xel yëpp day dem ci ñam yi waaye ñoom it duñ cee yam dinañ def li nga xam ne moom moo di bernde mburu ndax dinañ jàng alquranul karim waaye dinañ ko gunge ak ay xasid ak Serigne Touba Cheikh Bamba waaye duñ ca yam nag dinañ fexe mbokku taalibe yëpp bég euh, bokkandoo sant li nga xam ne moom moo di Serigne Touba Cheikh Bamba ci bernde yi kon xam naa rek dañuy daal di dugg ci biir wan leen image yi wan leen mbokku taalibe yi ni nga xamante ne nii jamono ji noonu yi la ñuy bernde les gan yi bu soobee yàlla ànd ak Serigne Malick sama caméraman wan leen image. tàmbaleeti te wax le te xam la feeti njariñu màggal ku jóg di màggal li yàlla màggal des na ka màggal danañ la jiital ma wax la màggal gi yàlla màggal ne ku ko màggal danañ la màggal li bamba woote ne buñ ko wuute digle ci bernde looloo di màggal safar mi ku ne ci réew mi xam na ni moom mi rek di màggal 18 safar mi ku ne ci réew mi xam na ni moom mi rek di màggal itali xam na Faranse xam na almaaja xam na li moo di màggal waroon na tey ñuy gonte kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal waroon na kon tey kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal murid yi jóg leen waa ji ci bernde ak ñaan ñu jekku màggal waroon kuy ñëw Tuuba fa aw ñam ya dëkkay aw ci barke màggal ñi yóbbu yam ya ci hôpital ya ñi yóbbu ñam ya ci hôpital ya ak pirison ya ci barke màggal sëriñ bi aw ñam la digle kuy dem na yóbbu aw ñam bernde ci màggal képp ku màggal bis bi màggal jëf mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax ginnaaw nag bi ñu ñëwee fii ci daayira bi nga xam ne moom moo di daayira si fa sudur fii ci sura fekk fi bernda yu am solo yi dañuy daal di dékk rek suñuy micro ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ŋànk liggéey bu am solo bii di liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba macha allah laqatu ci ginnaaw mbooloo mi ba euh, kattanal leen euh, ci ndimbaluk Serigne bi ba ñu mën a taxawal lu am solo lii jamono ji ñuy wax rek ñi ngi feggoo ki nga xam ne moom mooy euh, Serigne Modou Silla moom it nekk membre ci daayira bi ñu fas yéene koo suñu micro rek mu daal di wax ci maanaam Euh, kaddu ki nga xam ne moom moo di jëwrin waagaan fay xam naa rek euh, Serigne Modou dañ lay nuyu bu baax euh, jox la sa wàccuwaay daal di lay laaj rek maanaam nga wax ñu ci li nga xamante ne nii rek moom mooy doxinu daara gi rawatina nag ci xew-xew bu màgg bi nga xamante ne nii moom moo di 18 safar di màggal gi bismillah ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum soxna si ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di bég bu baax ci ñëw bi Bichri TV ñëw fii ci daara ji gane si ñu ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy bisu 18 safar mooy bis bi nga xam ne sëriñ bi ci la génnoon dem liggéeyal yi boromam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba suñu borom fay ko ci fay wu rëy wi bés bii kat day doon tawféex ci ñun da tawféex ci bépp murit ak bépp jullit nga xam ne nii bés boo xam ne ni dañoo war a feeñal suñu te daanaka mooy waral saa su nekk daanaka buñ koy taxawal dañ ci am nit ñi dañ ci am dog lool am ci positif lool daanaka bés bi moom niñ koy waajalee rek mooy ci njàngum alxuraan ak njàngum xasida ak waajal bernde yi ndax ba su sant la ba su iit la ba su feet la waaye nag duñ ko neenal danañ ci def suñ kenn kàttan ci jaam yàlla maanaam pexe ba maanaam duñ ci génn leen lu mu tanzimuhu bi sunnati nekk ci loolu daanaka ci lañ ci jéem a tegee niñ niñ koy defee ci ndakaaru njaay ci daara ja noonu lañ ko jéemee defaat fii nii maanaam jéem tase ci taw tawféexu sëriñ bi nag ndax daanaka daara ji taxuñu ko am doole lool waaye daanaka buñ koy taxawal dinañ dafa am tawféex goo xam ne ni da nga naan ñii sax xanaa daara ju mag a mag lañ waaye tawféexu sëriñ bi ak pas-pasu mbokku taalibe yi daanaka mooy moom mooy mottali lépp nga xam ne nii benn yu am solo danañ ko fi def maanaam lépp rek lu ci def doo doo ko doo doo doo ko xeeb waaye lu ci waay def doo ko naw ndax da xam ni bés bi lu waay am rek bés bi la bës bi moo ko lool kon loolu mooy waral bés bi ba nga ni daara ji maanaam maanaam lu ñu am lu ñu amul yëpp danañ pexe ba jëm ko ci def waaw daanaka mooy li ngeen gis ci xéewal yi woo mbokk taalibe yi mbokk jullit yi ñi nga xam ne duñ ay murit ñi nga xam ne ay murit lanu ñu woo maanaam bokk ak ñoom mbégtig sëriñ bi waaw ndax sëriñ bi kan lim ñu defal daanaka ñu mun ñu ko fay waaye mënees nañ rek maanaam képp ku ñu xool rek maanaam xam ni sëriñ bi moom liggéeyal na boroomam waaw loo ci lool nag la ñuy la ñuy fexee nekk rek waaw daara ji daanaka noonu moom loolu mooy taxawaayam jëruñ waagaan mi nga xam moo ko jiite it ci loolu la la la la nàmpatal mbooloo mi gaa yi ci loolu lañuy doox daal waaw. macha allah kàddu yi am na solo ñu ngi lay jaajëfal waaye bëggoon nañoo xam bernde yu am solo yi ba ngeen ko tàmbalee di def maanaam ci ñaata at la toll ba xam daara ji bi mu sosoo rek ngeen ko tàmbalee di def wala da leen a dab ci diggante waaw ba daara ji sosoo rek ni murit baaxoo moom dafa baaxoo maanaam di da ak ay joxe ñam ndax joxe ñam dafa bokk ci jaam yàlla yi nga xam ne moo gën a kawe daanaka murit noon la baaxoo daara ji di ko def nag di joxe ay ñam di joxe ay ñam waaye lii nag nit ñi pas-pas yi dafa dem ba yëg ba xam ne ni yëg nañ ni màggal gi maanaam lépp war naa soppeeku waaw ah, ku ñuy wax seen jëwriñ Mamour ñu daan ko waxee jëwriñ innovation maanaam moo indi woon lii nga xam ne nii ne ne maanaam dafa demoon ba ba dogg sax ne màggal gi maanaam ceeb waru ci waaw maanaam waaw mu mu mu mu xalaat ci xalaat yu am solo ñu jokk ko mu xalaat ci xalaat yu am solo ànd ceeg ñu mel ni ñoom Fatou Mata Diaw ak ñoom Maguette Niang ak ñoom so soxna Astou yow mi taxaw ak ñeneen ak ñeneen ñu xalaat ci ba mbir mi mel nii nga xam ne nii lu yéeme la nga xam ne nii nit ñi dañ koy xaar fu ñu toog rek dañ naan ndékki Chifa Soudour yi ndékki Chifa Soudour yi ndékki Chifa Soudour yi nga xam ne nii maanaam am na réputation boo xam ne ñu bari daanaka dañ koy xaar ñëw waa nga xam ne daara ji sax dañuy wane ginnaaw génn tuuti may gan ñëpp toog ba ba xéwlu daara ji doog xéwlu ndax ndax ndax ndax ndékk yi maanaam nit ñi yëg nañ ko tey tawfeex sëriñ bi daal fekk nañu ci daal. Euh, jërëjëfal nañ leen bu baax a baax mbokk yi ci teewlu bi nag ginnaaw bi nga xamee ne dékk nañ suñu micro ki nga xam ne moom moo di jëwriñ sëriñ Modou Sylla euh, mu daal di wax ci euh, kàddu ki nga xam ne moom moo di jëwriñ waagaan dañuy daal di rek dégg suñu micro ki nga xam ne nag moom moo yor wàllum budget bi ku wax màggal xam ne budget am na ci ku wax màggal wax bernde te bernde balaa muy am te faawu budget daal di taxaw mu mel ne nag ku xool image yi gis ni nga xamante ne ni Pastef biñ ci defee ak li nga xamante ne ni loolu budget génn na xam naa rek dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo ak téléspectateurs yi balaa ñuy dugg ci question yi Serigne Mbacke ñu ngi lay ziar. waaw soxna Astou maa lay ziar di leen jaajëfal di leen ziar yéen ñëpp waa di waxee ci kàddu finance daayira Sifa Sudoor yi bu nekk Parcelles Assainies ak Grand Médine ñu ngi leen di jëfal màggal gi moom macha allah budget bi affaire yi moom teg lépp teg nañ ko ci yoon daal waaw lépp daal rafet na wax dëgg fa yàlla waaw di jaajëfal ñëpp rek taxawaay rafet na ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi dem na ni mu war a demee ñëpp taxawal ko nii tey jii tey ji ku fi ñëw xam ne si wax dëgg fa yàlla ay ndaw rek ñoo fi nekk engagé lu mel nii euh, taxawal lu baas bu mel nii euh, def fi loo xam si lu am solo daal wax dëgg fa yàlla moom lépp rafet na macha allah. bëggoon nañ tamit ay leeral ci maanaam wàllum budget bi ba xam ndekki bi da ko utal budget spécial wala da ngeen koy boole ak li nga xam ne moom moo de añ bi ak reer bi budget li nga xamante ne ti te yàlla ci la dogal ñu fekkee ko muy ndekki bu am solo bi nga xamante ne nii def ngeen ko ndax mën nga ñëw indil ay leeral ci budget bi. waaw loolu moom ni mu demee mooy daara bi dafa nekk ay membres yoo xam ne si ah, ay soxna lan ak i góor yàlla maanaam ku nekk dafa am loo xam si moom ngay saso ci biir daara bi loolu nag bu ñu ko boolee day doon benn somme xam si xaalis lay doon loolu nag dafa am ay sous commission yoo xam si ñoo ci nekk lu ki mel ni waa cuisine mooy ñiy defar añ bi ak reer bi am waa petit mooy comme ni ngeen fekk nit ñi defar ndékki bi am waa collation ñi nga xam si ñooy defar jus bi ak euh, xeet yi ci des ak waa plonge yooyu yëpp moo ci am waaw ku ci nekk nag bu ñu dajalee suñ sunu sama xaalis bi nga xam ne moom la ñu am dañ leen di bàyyi ñoom groupe sous commission bu nekk ñu dem def defi seen liggéey maanaam xool li nga xam si moom lool la ñu yittewoo ci màggal gi ñëw présenté ñu li nga xam si ñun ñu étudier waat ko xool li nga xam si moom mooy raisonnable ak li mu wax ñu daal leen koy jox ñu taxaw ci bis bi mu mel ni ne yéen li ngeen jot a fekkee nii muy commission petit déjeuner maanaam seen liggéey rafet na te xam naa ni liñ leen joxoon buñ ko doon xoola xaalis dugg na ci biir ndax ku fi ñëw di nga xam ne si kat ndekki yi moom macha allah na depuis démb ba tey sax noonu la mel te lépp lu fi man di amit lépp jaar na ci yoon waaw sëriñ bi daal moom moo am doole kenn mënul nag moom rek la ndax bis moom bu jagee moom la du ñun dañ ko koy santewaat bu baax nag waaw jërëjëf jërëjëf xam naa fi may daanalee ak yow rek mu mel ni daara ji nekk na daara boo xamante ne euh, taxu ko takk noonu euh, bëriwuñu waaye it wax nga ko mu mel ni ay ndaw ñoo ci ëpp euh, bu dee am na ñu ci xam ne ñu ngi liggéey am na ci ñoo xam ne liggéeyuñ maanaam kon ba xam maanaam ci sasu mbooloo mu xaw a néew moomu doon ngeen basé wu ngir mën a am budget bi nga xam ne am ngeen ko ci màggal gi wala dafa am ay jaayante wala lan bëggoon nañ ci ay leer. waa ci kaw loolu tamit daara bi ay ndaw dong ñoo ci nekk. maanaam kii ci mag boo ko doon xool boo amee 35 ans am maanaam ci kaw loolu tamit am na ci ñoo xam ne ñu ngi liggéey waaye ñi ci liggéey lu ñoo nag ñoom sëriñ bi jaral na leen ba képp ku ci liggéey ku ci liggéeyul bu bisu jëf jotee doo leen xàmmee ba tax na ku nekk daal jëf nga ci li ci war a jëf lépp ñu bis ñëw taxawal fi bis bu mel nii maanaam macha allah lépp daal tege na ci yoon ci kaw loolu tamit ah, maanaam am na ay jaayante waaye jaayante yi tamit du mën a am na solo du mën a amul solo waaye nag macha ma am na solo daal ndax nit moom koo xam si euh, amul euh, am na yëg-yëgub def ci bisub sëriñ Touba bi boppam la ko bisal boppam la ko defal ndax am na ñoo xam si nekkoon nañ ci daara bi yàlla def ren tey ji ñu voyage yi nekk ci yeneen réew ñoom it seen loxo dugg na ci bu baax mu mel ni daal finance moom fi mu toll amuñu lu ni lépp lenn loo xam ci ñu ngi koy jooytu wala ñu ngi koy jàmbat ndax fi mu toll lépp mate na ko lépp mate na ko lépp lépp mate na ba xam naa ne sax fi ñu toll buñ soxla woon dina mën a génn duñ du du suñu njàmbaar nag liggéeyub sëriñ bi la ak suñu bëgg-bëgg ñun ndaw ñi loolu moo ci am solo jërëjëf Euh, ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax ginnaaw bi nga xamante ne pare nañ ci ki nga xam ne moom moo di Mbàkke yor wàllum finance bi lépp loo xam ne ay koppar la ci daara ji dañuy daal di rek ñëw ci ki nga xam ne moom mooy dalal nag daara ji am fii taxawaay bu am solo ndax buñ nee bernde xel yëpp dafay dem ci li nga xamante ne nii moom moo di euh, lekk gi ak naan gi yenn saa it xel yi dem ci li nga xam ne moom mooy bernde ru yi xasida waaye ak li nga xam ne moom moo di alquran waaye nag bernde tamit li ci njëkk moom mooy dalal nit ñi ñi ubbil leen seen kanam ñu ñeme la nga yaatal leen fexe ba ñu yaatu fa ñu nekk mu mel ne moom mii taxaw tey moom moo yaatal ñi nga xam ne ñooy def liggéey bu am solo bi xam naa rek Serigne Pape Diop dañ lay nuyu bu baax a baax di la ziyaara bàyyi la rek nga daal di joxe ay kàddu ci maanaam dalal gi nga xamante ne nii wala mbooloo mi nga xamante ne dañuy jóge ba dakaar daal di ñëw fii dal si si fi nga xam ne moom mooy ci kees gi ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw Aliou Diop laa tudd euh, sama wax ndax du ci mën a bari lool sax ndax sama xol dafa sedd eh, jàpp naa ne ba ngeen fi dalee ñëw ba léegi yaa ak yokkute lañ ci gis te mel na ne màggal gi moom ku la ëpp gan moo la gën a neexul màggal te gis naa ne ñu am pasteef ngeen ñu xam ne nii ba ngeen fi dalee ñëw ba léegi dangeen di yokk waay wàññiku leen xanaa li ñuy def bàyyi leen ak sëñ Tuubaa rek ndax borom dëkk bi moom lu mu mënut amut dafa wax na ku ko lëggéeyal euh, ker mu fay la guddi kon ñu ngi ñaan rek euh, liñ fi def lépp suñ tubaa nangul ñu ko muy cant gi ak euh, bernde gi yàlla nañ ko sëñ tubaa nangul te boole ko jullit yépp ak taalibe te lépp lu ci waay ñaan ak lu mu ci sàkku yàlla na la ko suñ borom defal te nga am ci lu kawe suñ jot loolu daal la amoon luñ ci wax di leen ñaanal nag di leen dalal te xam ne kër gi moom seen kër la sëñ Tuubaa moom ku fi am kër ci dëkk bi taalibe tax nga def ko fi kon nag bu ngeen fi ñëwee suñ xol la ci sedd guy ñu ngi leen sant di leen gërëm te di leen wax dal leen ak jàmm yàlla suñ borom nangu sunu màggal nun ñëpp te kenn ku ne loo fi àndaale ci loo xam ne ni yitte la joo xam ne nii joo soxla la yàlla na ko suñ borom def borom dëkk bi